ba maa ko waxoon fan nga dëgg visa ba maa ko waxoon fan mécc moo gis am na directeur waaye gaay yi ci réew mi yaay sa directeur métier moo gis am na directeur waaye wala ci réew mi yaay sa directeur dafa ne métier moo gis am na directeur lu sax waaye gaay yi ci réew mi yaay sa directeur we got. istemeyelim. loolu yàgg na ku ci tàcc sa loxo du bitti yàgg ngeen maa sagal mooy sa baay te sama baay bi yow doo ma yàqal dara jamais ma fille Youssou taaloo taw taw bari bokkul yi sunu rëy taw taaloo taw taw bari bokkul yi sunu taw tikki daara mi ngi nii yaay magi buuba di magi ngóone kenn du mel ni yow nday soxna jooyu dara ndax yow xam nga lu tax ma defal loolu kooku ma tudd nday soxna buub daf la bëgg daf la bëgg moo tax ma may la 5 millions. doom ji ñu di ma teral te nit du fàtte démb baaxul du leen mës a fàtte benn yoon sama papa la sama xarit nga dafa yàqaloo ma dara yàlla la yàlla yàqal sama doom waaw waaw waaw waaw xam nga nit ku baax day xool lu baax mu di ko roy li ma la wax sànq dama la ku nekk bëgg na mel comme Youssou Ndour sunu papa la sunu maam la sunu lépp la vraiment kuy yor micro rek bëgg nga mel comme moom ci dignité ak personnalité am vraiment. yow dafa bokk ci ñu mu fa parce que saa yoo ñëwee nga bégal ko. xam nga nag xam nga tey kenn du ne Ndiolé Arena moo tax mu ñëw Youssou defe naa sama première visa Bercy moom moo ko def ci sama passeport yaayam di sama xarit ajaratu ndey soxna mbuub ma koy ñaanal yàlla na fi yàgg loolu ca wér yaayam moo ma njëkk a bëgg ñu ko dama bëgg Ndiolé mii sama taasukat la nga yóbbul ma ko Bercy boobu laa gën a nekk xale loolu saano la woon defe war naa def ay vingt ans ñu ngi koy teg ba tey nit ñi di ko bëgg. mu xam sama talent nag bokk ci ñoo xam ne su may taasu dañuy kontaan ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér parce que nit ki lu amul lu dul ki ko bëgg ak ki ko yëg Ndiolé la moom artiste la boo xam ne képp ku ko xaba xajal ci seenam euh, nekk nit koo xam ne euh, amu fa benn problème day daal di ñëw parce que man ñëpp benn lan ci man waaw. alors noonu la dëkkee ak man bu ma mësaa ñëw soirée sax su ma xëyaatee. day yebal Omar Gueye ne demal nga jox lii njole di ma jàppale ci côté bu nekk boole koog di ma yedd boo waxee mu ne ma bul tont de liggéey boole patt ak organiser vraiment ku ko déggal doo juum ci benn côté way ko déggal ci benn côté moom doo juum parce que vraiment da lay du la tontu loo loo wax mun la bul tontu ndax musique moo demee noonu liggéeyal sa liggéey cay gën a góorgóorlu waaw. Waly démb Youssou Ndour tey musique sénégalaise. jàkkaarloo macha allah ko jur. Wally Youssou Ndour a ko jur te ku ne xam na ne Youssou dafa am cofeel bu muy xoolee Wally euh, ba tax tubaarkàlla macha allah neex na waa Sénégal ndax comme deseetul baay te Youssou Ndour mat na baay mat na lépp Wally da koy xala baayoo rek ndax papaam lay mës a doon vraiment waaw ñu koy ñaanal gudd fan ak wér rek waaw. merci beaucoup def man kontaan naa ci yéen.